ci àllarba jile la ko gën a soxal mu fësal ko ci ndaje mi le moo di jigéen ñi mënal seen bopp. ca noonee njiit réew mi daal dina fàttali ni ci programme bi mu fësal ci élection présidentielle bi ñu weesu dafay jox cër bu mag ñii di jigéen ñi mu jàpp ni dañoo bokk ci liy dëgëral koom-koom réew mi. ba tax na mu sàkku ñu càmbar bépp jumtukaay boo xam ni dana ñoŋal koom-koomu jigéen ñi daal dina itam sàkku ci gouvernement bi a ñu préparé projet de loi bu jëm ci loolee. ca booram premier ministre daal dina jëmmal li mu jàpp ni mooy ay priorité yu gouvernement bi Ousmane Sonko daal dina sant ay ministre ma ngir ñu wàññi koppar ga nga xam ni moom la état bi doxee mbirum suuf itam desul ginnaaw ci ndaje mile premier ministre bi lee daal dina sàkku ñu doxi jéego jëm ci nangu suuf ak mag yu état bi nga xam ni daal dina ko joxe société privée ci anam yu jaarul yoon ci jamono boo xam ni ay service su état bi ñu ngi ci location ko bëgg itam ñu baral lépp luy prêt DMC di ay bor yoo xam ni am na ci ay banque nguur gi ci lu soxal mbirum ressources naturelles ku fas na yéene daal di càmbaraata yenn ci ay convention yoo xam ni am na ci secteur minier pétrolier ci wàllum napp gi waaye itam càmbaraat lépp luy finance publique li ko dalee 1er janvier atum 2019 ba 31 mars ba atum 2024